ci sababu wàccaayu 57e ziara annuel bu Arafat bi ñu jàpp ni samedi yemook juróom benn fan ci weeru mai atum 2023 ba comité d'organisation bi gàlloo lépp lu aju ci bile bis di sàkku ci mbooleem sopp yi rawatina taalib yi ñu dugal seen loxo jaayante bu baax ci participation yi ñuy amal ngir taaralee ko bile événement ngir joxe sa barkeelu jafewul benn yoon mën nga ko jaaree ci Wave wala ci Orange Money ci 78 320 62 43 wala 77 619 23 56 ak sama ñeenti téeméer bile lile samaw ñaq tabbi na ci biir toolu Cheikh Seydil Hadji Omar Dramé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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy te bu ñu nee góor ngóoraa tax. mbokk internetu Sunugal 24 ñi ngi leen di nuyu di am mbégte di leen dalal ci xibaar yi tey nekk àllarba yemook ñetti fan ci weeru mai atum 2023 la ca gën a fës dañ koy dooree ak Sénégal ànd ak àdduna wërngël képp di màggal li nga xam ne mooy journée mondiale de la liberté de presse ñu bokk ci juróom fukk ak juróomu pays yi nga xam ne waa Reporters sans frontières dañoo jàpp ne wàllum tas xibaar dafay indi ay jafe-jafe bu baax a baax ci biir réew yooyu ca tribunal bu ndakaaru la ñu jëm bés bu set ñuy traité lu toll ci juróomi téeméer ci ay cas tax mu indi ay jafe-jafe ci li nga xam ne moom mooy wàllum magistrat yi ndaxte daanaka dix cabinet ya fa nekk juróom benn rek moo cay dox ñeent ya dañoo sooxee ndax amuñu ay magistrat yu fa nekk journaliste bii di Babacar Touré piqué ab crise démb ca commissariat bu central ba dañ ko daal di rawale yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital principal bu Ndakaaru ñu leen dikkal ci Sitor Ndour mi porté plainte Gabriel kan ak Dame Mbodj la mu leen di toppee bokk na ci diffamation outrage en magistrat ak injure publique moom mi fi jiite woon centre des œuvres universitaires de Dakar de Dakar COUD moom daal dinay porter plainte ñaar ñi nga xamante ne dafa jàpp ne dañ ko daal di diffamer ci réseau sociaux yi yéenekaay bii di Le Regard la ñu koy ndar keppe xibaar yi daal di buur nes kiis bàkk ba jip ma dikk ak yéen ci faram fàcce yi mu ngoog bàkk ba jib na ñu di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen dalalaat beneen yoon ci ëttu yéenekaay yi fii ci Sunugal 24 dañ koy dooree ak Sénégal mi ànd ak àdduna wërngal képp di màggal li nga xam ne mooy journée mondiale de liberté de presse classement 2023 bi waa Reporters sans frontières di xam le ni Sénégal bokk na ci 55 pays yi nga xam ne wàllum journalisme dafay andi bu baax a baax ay problème ci biir réew yooyu waaye itam ma ngay xam le ne Sénégal dafa daal di chuter bu baax a baax ndaxte rapport 2022 bi dafa fësaloon ni Sénégal Sénégal mu ngi nekk ci soixante treizième place waaye rapport deux bi dafa wone ne Sénégal mi ngi ci cent place ñu ñàkk li nga xam ne moom mooy trente et un point daal di chuter dellu ginnaaw bu baax a baax ña ngay xamle ne li nga xamante ne moom mooy centre Afrique ak Burkina Faso sax ñoo raw Sénégal mu nekk ñaari pays yoo xam ne ñëpp ràññee nañ leen ci ay xeex yoo xamante ne dafay ànd ak violence bu baax a baax te loolu amagul ci biir réew mi waa Reporters sans frontières di xamle bari ay dañ leen di topp bu baax ci yoon ci biir Sénégal moo indi bu baax a baax Sénégal daal di dellu ginnaaw ci wàllum liberté de presse. ci tribunal bu ndakaaru la ñu jëm dossier yi nga xamante ne dañ koy traité bés bu set toll ci juróomi téeméer tax mu andi ay jafe-jafe bu baax ndaxte dossier daanaka ña nga bëri lool ci taabalu juge yi te amuñu juge yu doy a doy ngir atte yooyu dossier ndaxte tribunal bu ndakaaru li nga xam ne moom mooy sixième cabinet huitième neuvième ak dixième yëpp dañoo daal di bloqué te ba tax dossiers yi tuuru fa lool lool te bés bu set ay dossiers ngay yokk waaye ñu am jafe-jafe lool ngir taxawal dossier yooyu ndaxte dafa am ñaari juge yoo xam ne dañ leen a daal di changer yóbbu leen feneen waaye ba léegi amaguñu ñu leen remplacer ba tax na mu jur ay jafe bu baax a baax biir tribunal bu ndakaaru taskatu xibaar bi di Babacar Touré la ñu jëm moom mi nga xam ne dañ ko fi tegoon loxo ginnaaw bi ko euh, Frédéric Nappel daal di porté woon plainte ñu tegoon ko loxo depuis alxames bi ñu weesu mu nekkoon mu am retour de parquet ñaari yoon nekk ca commissariat central bu ndakaaru démb nag dafa piqué ab crise bu doy waar ba dañ ko dal di rawal yóbbu ko fële ca hôpital principal bu ndakaaru fa yeewoo ki ko xamle mooy maître Khoureychi Ba mi nga xam ne moom moo koy layool ma ngay xamle ne nañu gaaw ci ay mbiram ndaxte journaliste bi dal na sonn torop te santé ma ngay sooxee bu baax a baax féministe bi di Gabrielle Kane ak activiste bi di Damboj wala boog syndicaliste bi di Damboj ñoom nag ki fi nekkoon directeur général bu centre des œuvres universitaires bu Dakar moo leen daal di porter plainte moom Sitor Ndour ginnaaw bi ko chambre criminelle relâché au bénéfice du doute ci délit wu viol bi nga xam ne ab jànqam moo ko ko jiiñoon moom Sitor nduur ma ngay xam leen ne porté na leen plainte pour diffamation ndax Gabrielle kan dafa defoon si page Facebook am di wax ne loolu loolu chambre criminelle def moom àndu ci benn yoon te mu Ndour yëkkati ay kàddu yu doy waar tegoon ko ci kawam ba tax mu porté ko plainte ki nga xam ne mooy syndicaliste bi di dàmbooñ moom itam mu ngi koy toppee diffamation injure publique ak li nga xam ne mooy outrage moom dàmbooj dafa chambre criminelle tegul fenn bàyyi bi mu ko bàyyi ndaxte li ñu ko jiiñ moom moo ko def nee na moom ay plainte du ca foofu ndax ki nga xam ne moom moo ko porté woon plainte di jànkam boobu ak kii di waajuram bu jigéen daf leen dañ ko jiiñ loo xamante ne defu ko benn yoon loolu moo tax du leen bàyyi daf leen di ëlbatiku porter plainte ngir laver li nga xam ne mooy honneur am ca cité kër góor gi la ñu jëm ab clinique bu fa nekkoon ñaari daam dal di fay nekk kenn ki ma ngay wuyoo ci turu Sophia Gueye dañ doon exercer métier wu gynécologie te ñoom jànguñu ko benn yoon ki nga xam ne mooy Sophia Gueye la ñu njëkk a teg loxo bi ñu ko tegee loxo mu daal di xamle ne moom du ca dara ki nga xam ne moom mooy patronam moom moo nekkoon ci ginnaaw moo ko daan yónni moo itam clinique ba da daan jël chaque jour ay jigéen yu toll ci yoo xam ne ticket ba dañ ko daan jëndee trois mille francs moom Sophia Gueye ma ngay xamle ne ki nga xam ne moom mooy Mariama Sall moom moo jiite lool ndax moom moom moom clinique ba moom dafa jàng rek li nga xam ne moom mooy aide soignant waaye xamul ci wàllum gynécologie dara Ousmane Sonko di xamle ci ab benn post bu mu def ci page Facebook am ni dal dina def sorti bu njëkk niki démb génn Sénégal def escale ca Gambia judiciaire depuis ñaari at ak ñetti weer moom ma ngay xamle ne booba contrôle judiciaire jeex na bu yàgg ndaxte instruction ba daal dina jeex waaye juge bi di ma Maham Diallo moo ko nanguwul a delloo ay droit wam delloo ko ay papier ngir mu tàmbaliwaat ay voyage am heure bu bëggee génn réew mi moo tax justice boo xam ne moom Ousmane sonk moo ko xamle ci page Facebook am justice boo xam ne dafay daal di déglu ay politiciens di leen obéir moom jàpp na na ko gar mbuur la ñu jëm benn waay bu am ñeent fukki at ak benn moom daf daan taxaw ci kaw terrassam di filmer ñi nga xam ne ñoom ñooy sangoo ci douche ba ndaxte douche ba amul woon toit moom bu toogee foofu dafay daal di gis lépp li fa xew mu jot fa tourner ay vidéo yu bari bari ba tourner benn vidéo benn xale bu jigéen bu am 14 ans sa ko daal di jàppee tribunal dal di ko teg ñetti weer yoo xam ne dafa ànd ak sursis waaye du ko tëdd ñetti weer yu mu dul tëdd ak 500000 yoo xam ne dafa koy fay ki nga xam ne mooy xale bu jigéen boobu ngir laver honneur am moom nag ba mu taxawee devant la barre ma ngay xam le ne lii yëpp mbirum seytaane la waaye du loo xam ne lu ko neex la wala lu mu tay la ma nga jéggalu bu baax a baax xale bu jigéen bi am 14 ans nga xam ne moroomu doomam la ak ñi nga xam ne mooy ay waajuram ndax moom sax ma ngay xam le ne amul benn problème mu jigéen ndax am na ñaari soxna le regard quotidien la ñu koy ndar keppee si xët gu njëkkam tey jii ma ngay xamle ne Sonko sous provocation judiciaire nee na Sonko ma ngay provoqué bu baax a baax justice bi ndax mu nga def benn escale fële ca Sénégambia daal di immortaliser moment yi sax nag la def daal di def benn photom boo xam ne sénégal Sénégambia brise lañ ci def ngir immortaliser moment yi waaye itam ngir won Sénégal yëpp ak àdduna wërngër këpp ne moom Ousmane Sonko nekkatul ci li nga xam ne mooy contrôle judiciaire page 4 ba nee na dañ ko évacuer au pavillon spéciale euh, de l'hôpital principal de Dakar suñu lionceaux yi CAN U17 le Sénégal bat l'Algérie et se qualifie en quart daw leen ngeen jëndi euh, le regard bi nga xamante ne moo leen di jox ay information yu wér woor en temps réel jërë ngeen jëf di leen jox dig daji ëllëg incha allah ci beneen ëttu xibaar